limon yi nga xam dañoo nekk ci jardin yi Tripoli ban ca àggee ca bunt ba fu wetu bax saas foofu laa yëge xet gu neex lool te mooy xetu tóortóor yi limon ya nu door a jàll nag wuti baabi tabbaana fekk suñu mbokk nekk foofu nag nu noppalu fa wa bax da an ukrim naa gannaaw ba nga xamee ne tere leef nanu bi xusnil istiqbaali ci rafetuk teeru ga ittajax naa jublu nanu sayran ci dox xalal aqdaami ci ndëgg ya ilaa bustaani aqaaribina jëm ci jardin wu sunuy jegeñaale alwaaq yi bay aji tàbbi mooy bay aji nekk qurba mutanazzahi burji rasi nahri ci wetu féexlukaayu burji rasi nahra xaytu yasub fa nga xam ne fa lay sotti nahru abi aliyin dexuk abi xali baxda safarihi ci gannaaw tukkeem ba moom dex ga ak tawili tukki bay aji yàgg min safxil arsi bàyyi ko ca mbartalu al ars wàjj tiyaasil aw diyati ak jéggi xorya alxamiqat yi aji xóot mu ne nag gannaaw ba nu sunuy mbokk teeroo teral nu dana dox ak sunuy tànk dem di seeti benn jardin boo xam ne sunuy mbokk ko moom te mu nekk fa wetu féexlukaayu burju rasi nahra te foofu sax dex gi ñu wax abu ali gannaaw bu dawee daw bu yàgg-yàgg bàyyikoo ci mbartalu ars jéggi ay xuri xur moom dex googu foofu lay sotti ci wetu féexlukaayu burju rasi nahri te it chardeef sunu mbokk yi ban doon seeti foofa la nekk wa maa hiya déet moom illaa bidhu daqaa'iqa ndare quelques minutes xataa wasal naa ba nu àgg ilal bustaani jëm ca jardin ba almaqsuudi ba di buñ jublu fa furishat te laleef albusutu topp ya taxtal ashjaari ci ron garab ya almukallalati ya di ñu peege bi zahri ci tóortóor an naasixi bay aji sell ëllësi ba nga xam ne yetta la la u dana melqati baynal awraaxi ci diggante xob ya alxabra yi aji wert mu ne ay minutes yu néew rek lan am daal di àgg ca jardin boobu nga xam ne moom taxaw na jóg naka ñu àgg daal di lal topp yi ci ron garab ya garab yi nag ay tóortóor yu sell moo ko wër tóortóor yu melxati ci diggante ay xob yoo xam ne dañuy xob yu nëtëx yu rafet rafet wantashara te tasaaroo afraadul ailati kenn kenn famille bi yu hayyi oona di préparé alxadaa añ bay na mastal xaytu ba nga xamee ne jaaxaan naa xalal bisaati ci kaw tappi ba wastaslamtu te ma bayliku li naw mi jëm ci nelaw walam astayxiv yewwuma illaa illaa xalaa nida ay waalidati ndara ci wooteeg sama yaay taddu xoon yi mu may woo ilaa tanaawuli taxaami jëm ci yootu ñam wa maanaam jëm ci jëfandikoo añ ba rek la bëgg a wax yaa allah ci yàlla kam lu baree bari wajattu fekk naa ak taxaama ñam wa ladiidan muy aji neex wasta haadihil jannati ci digg bi lay jardin alfayhaa bi ajiyaatu allati ba nga xam ne yajri dana daw wa yasuuru tey jeqiku xorbaxaa ci wetam nahru abi xaliyin dexuk abi xaliy fatu jiibuhoo te koy tontu alxasaafiru picc ya bi zaq zaqatihaa ci seenuk sab almufrihati gay aji pëgloo yu shaarikuhaa dana bokkaaleeg ñoom fii daalika ci loolee afraadu xaailati benn benn sama famille bi ëllësi na ña nga xam ne axasoo tàmbali nañu yatabaadaloona di joxlante alfukahaati ay xeeti mbóorante wayu siloona te ñuy boyal ab dixkata ak ree tilwat dixkati mu topp geneen ree ba nu demee ba ca jardin boobee famille bi ñenn ñi dañoo taxaw ci préparer añ man nag ma daal jaaxaan ca tappi ba daldi tàmbalee nelaw la ma yee itam mooy rekk sama yaay di ma woon naa ma ñëwal añ loolu dong daal moo ma yee mu yëm yàlla ne ci yàlla añ ba nam neexee daal ak fan ko doon añee ci digg jardin bu yaatu boobu nga xam ne dexuk abi xal yi mooy dex gi tudd abi xal yi dangay dégg ni dex gi dawe ak na muy jaqikoo ko defee nag picc yi ni ñuy ciib ciibee ànd ak kàddu ndox moomu di walwalee ka yëngutu boole ci nag waa famille bi noonu ñu toogee di añ ñu ngi joxlante ay kaf yu neex a neex ak ay ree yoo xam ne dañuy reex ak reexaat rekk mu ànd ak kaf yu neex yi xam ne kon boo boolee kaf yu neex yeeg ree yu tegaloo yi ak picc yi nga xam ne ñooy ciic ciij ji ci ciic ju neex a neex ak naxaru abi xali dex googu ni nga xam ne moom la ndox mi dawe ak a jeqiku soo boole yooyu daal ak ñam mu neex wi nuy añe yàlla rek nee na moomate yéem lu mu neexal mu neex wa baxada an akal naa gannaaw ba nu lekkee mari an lekk gu neex wa sharib naa te nu naan xani an naan gu neex naxad naa jóg nanu nata jawwanu di wandeelu fii an xaayil bustaani ci wàlli jardin ba nu matteemu dana nu bànneexal am vaarana sunuy bët bi mën naa zirihi ci xoolukaayam ya wanu xat yi te nuy añal ajj saamanaa sunuy yaram bi faakihatihi ci furuweem xataa aqbala ba dëgmal si almasaawu ngoon ga waxadu naa te nu dellu ilal bayti jëm ca kër ga gannaaw ba nu añee añ bu neex naan naan gu neex danoo jóg nag di doxantoo ko wëndeelu ci côté yi jardin boobu di bànneexal sunuy bët ci rafet rafeti jardin bi di dundal suñu yaram ci furu bu neex maanaam xeet doom yu neex ya fa nekk sax ca noonu nag ba ngoon nu door a dellu ca kër ga wa fil ayaami ca fan ya attaaliyati ya ci topp sur naa lanu nemmiku mutanazahaatil biddaaw yi féexlukaayu al biddaaw yi da nga ne promenaatukaayu al biddaaw yi wa abi samrata ak abi samra wa baxda ayaamin gannaaw ay fan qadaynaaha yoo xam ne jeexal nañ leen fii faraxin ci biir mbégte wa suróorin ak mbégte ñoo bokk xoddunaa dellu nanu ilaa bayruut te jëm bayruut wa nax nu te nun nar fulu dana nu daagu bi xulali saxaadati ci koddaayi bonheur mooy texe wan nashaati ak cawarte muy activité fan yësës ci bis boobee lanu nemmiku fa ñuy wax al biddaaw yi ak abi samra tem am ay féexlukaay yu rafet rafet noonu la nekkee ci Trablus ba am fay fan nag te lépp di mbégteeg jàmm nu door a dellu nag Bayruut te ba nuy dellu noo ngi daagu ci koddaay yi bonheur ak activité mooy noo ngi dellu rek ànd ak xol yu sedd ak activité sawar lool njaxlaf lool ak tuyóoru ay xeeti njanaaw wala xayawaanaatu ak i rab alxumm polaaye fi xadiixati baytina nekk na ci jardin sunu kër xummun ab polaaye li dajaa ji ñeel ganaar ya xasanul binaa yi buy aji rafet ab tabax fii nekk na ci moom rufoofun ay gàll xashabiyatun yuñ ko jub dénk tartaaxu yi dana sigré xale yi ci seen kaw ak tuyóoru njanaaw yi fii nekk na ca it ay don ba tey sunduuxun ak kees mafruushatun gudiguñ laltaay arduhu suufam sa bil xash ci ay bant yu nooy tabiidu dana mën a nen ak dajaajaat ganaar ya alayhi ci kawam sunu sardin ba ci kër ga dañ caa am poulailler boo xam ne dañ koo defal ganaar yi poulailler bi ñu tabax ko tabax bu rafet ci biir ñu def ca ay gàlli ay bant yu ñu gàll yoo xam ne banti dénk la xam ne ganaar yi mën nañ caa tong bu amee yeneen janaaw itam janaaw yi mën nañoo yéeg ci kaw bant yooyu tong ca di noppaloo ka maare am na itam kees bu ñu defar goo xam ne suuf ga dañ ko lal ak ay bant yu nooy mu mel ni ñu wax am kaas am kaas wala am aas luy nen fa muy defar ngir nen fa mooy tudd am kaas wala am aas ci wolof mu ne am na kees bu ñu fa def goo xam ne dañoo nooyal dañu laltaay suuf ga ci ay bant yu nooy ndax ganaar yi buñ dee nen mën a nen foofa te wóorul xummi janaawi pulaaye ba ku la sabaaxin ci gépp suba taf taxu dana ubbi waalidat yi sama yaay baabal xummi bunt pulaaye bi tax ruju dana génn addu yooku siq ya awalan ci njëlbeen tumma tat ba am xaa topp dana leen topp ak dajaajaatu ganaar yu mag ya jigéen ya tumal firaaxu topp cuuj ya te tasaabaqu dana rawante ab tuyóoru njanaaw ya naxwa waalidat yi fa féeteeg sama yaay tànturu dana tasaare laxaa ñeel leen alxaba pepp te tasaaxamu dana buuxante al afraaxu cuuj ya yataala dana yëkkatiku siyaahuhaa seen yuux wa xawqa atuhaa ak seeni ciib ciibi tanhaalu dana xaweeku ak duyoogu siqiya naqdan ci cof xalaa ajsaami dajaajaati ci yarami ganaar yu jigéen ya tahrubu dana daw al afraaxu cuuj ya maha ummahaatiha ànd ak seeni yaay taltaqitu danañu fori ñoom cuuji alxaba pepp ma xan masaafatin ci ab diir ab distance kabiratin bi aji rëy suba gune sama yaay day ñëw ubbi buntu poulailler bi siq yu mag yi ganaar yu góor yu mag yi ñooy njëkk a génn ganaar yu jigéen yu mag yi topp ci cuuj yi ñooy mujj a génn suñu génnee nag dañu daal di gaaw wuti sama yaay ndax sama yaay da leen di jox pepp sama yaay day tasaare pepp ñu koy for ñoom ganaar yi cuuj yi ganaar yu ndaw yi dañuy buuxante bu ko defee nag cuuj yooyu le dañuy jooy rekk ka ciib ciib bi ñoom cuuj yi siq yu mag yi da ngay gis ñu xaweku dal ci kaw ganaar yu jigéen yi di leen cof rek ndax bëgg leen a aaye pepp mi sama yaay di tasaare su ko defee nag ganaar yu jigéen yi bu ñuy daw seeni cuuj dañuy dawaale ànd ak ñoom nga xam ne amaana cuuj yi moom bu ñu foree pepp daal daw ba fële ñu lekk ko door a ñëwaat mën naam nag pepp mi ñu tasaare dal fu sori cuuj yi dem di ko fori tan xudu dana cof ak duyooku siq ya alxaba pepp ma bi naxamin ànd ak fuqale zaidin ku di aji ëpp tanzuru danañu xool sazran ci ak rokku ila dajaajaati jëm ci ganaar yu jigéen ya siq yi ni ñuy lekkee pepp mi day gaaw mooy dañuy cof cof bu gaaw a gaaw xir lool ci pepp mi ñuy lekk su ko defee nag ci loolu ñi ngi rokkuwaale mooy ñi ngi xoole ci seeni peggi bët ba xam ganaar yu jigéen yi ñi ngi ñëw bëgg cee lekkam déet ndax dañ leen di aaye nga xam ne buñ dee lekk ñoom seq yi itam ñi ngi gendikuwaale ganaar yu jigéen yi ndax bañ ñu ñëw xoyoonu xaa seeni bët alxamaraaw yi aji xong taq daxu danañu kocceel ma danañu taal chararan ay ferñeent ganaar li ci ëpp bëtam day xong cooy moo tax mën naa séq yi seen bët yu xong yi day mel ne day tàkk di génne ay ferñeent riisuha seen dung ya ak dahabi yooyu ko jug wurus mooy yi mel ni wurus rek yàlla maaw dana melxati taxta ashihati samsi ci roon ceeñeeri jant ba boo defee riisatu lay firi wenn dung waaye boo defee riis rek day doon lisimi jins maanaam xeetu dung rek seen dung yi mel ni wurus la wax naa bu àndeek ceeñeer jant bi day mel ni dung yooyu day melxate taxtalifu dana juyaloo ak duyooku siq ya fiimaa ci la nga xam ne bay naxaa nekk na seen diggante tatabaadalu danañu joxlante ar rafsaati ay wéq ak i fàdd wa naqda akuk cof yan sow yi dana banku mooy dana daw làqu almahzoomu gañu gañe fil xommi ci biir pulaaya ba yatiiru dana naaw yatiiru almuntasiru aji gañe ja ila makaan ba ci ab place murtafiin bi aji yëkkatiku yasiixu dana yuuxu bi faxrin ci ak damu waxu yàlla aku puukaréewu bu fekkee ne ay siq dafa nekk danañ di noonoonte amuk juyoo bay xeex buñ dee xeex nag xeex ba dana di metti ndax dañuy fàddanteeka ñaqanteeka cofante su ko defee nag su demee ba yaari siq yi xeex am ca gu mën moroom ma nga mën moom day naaw ba ca kaw li kaw niki ci kaw pulaaye ba muy sabaka sabar rekk di damu ne gañe naa saa moroom mais siq gañu gañe nag moom day daw làqu ca pulaaye ba ndax bañ gi ñëwaat di ko cof tëti dana dikk ad dajaajaatu ganaar yu jigéen ya wa afraaquha ak seeni cuuj takul danañu lekk xaaifatan mbir mu ñuy aji ragal maanaam gannaaw bu siq yi lekkee ba nga xamee ne seen xel dal na la ganaar yu jigéen yi di door a ñëw ak seeni cuuj di lekk te bu ñuy lekk it kat ñi ngi ragal siq yi ñëw di leen dàqaataka cof zaribatu xadiqatina géttug sunu sardin bi maanaam gétt gañ def ca sardin ba fi xadiqatina nekk na ci sunu sardin bi zaribatun gétt nadaxu danañ teg mais danañ def fii xaa ci gétt bi xaruufan am xaaf waxansatan ak bay wu jigéen naxtan yi dananu sonne ma dananu toppatoo biximaa ci ñoom ñaar kasiiran lool tu fii dunaa dananu jariñ alxansatu bay wu jigéen wa bi xali bihaa ci meewam ma wa laxmihaa ak soowam ma wa jildihaa ak deram wa am nanu ab gétt buñ def ca jardin ba daanu cay def xar ak bëy ci ni mu waxee xar mi xar mu góor la béy wi béy wu jigéen la dañ leen di toppatoo bu baax béy wu jigéen wi moom dana di am doom aka am soow ñu koy rat nga xam ne kon daan ci amee yàpp ak soow ak sax aw der ndax buñ ko rendee moom ci boppam mbaa ñu rend ci ay doomam rek daal di am der alxaroofu nag lay bëgg a wax mbiram am xaaf xaywaanun aw nundat la latifun wi aji ñewant wa wadihun tey aji tey mooy tey aji dal tatifu suufi tey aji bari ngënal mooy tey aji bari kawar kabirul iliyati tey aji rëy njekkikaay fàllara ji day rëy daal yasqoo dana di mbee mbee suxaan ak mbee naiman bi aji xéew daañu wax nag yasqoo dana meem waaye daa mel ne meem dañ koy jëmale ci bëy xar nag mbee mbee moo ci gën a bari waaye nag ba tey mel na ne boo yedd xoonaa dana nuwoo li it xaamihi jëm ci ak joxam lekk yaraxaa dana for itam dana di fori filmar ji ca tool ba muy ci béréb bu naat ba xar moom nee na li ko yàlla bindee day dal neex a yor du bari baj baj du def dara seen xar mi nag moom nee na dafa bari kawar njekkikaay li fàllara ji dafa rëy dana di mbee mbee yi wala muy meem su bëggee ku ko jox lekk mbaa naan daal dana tax muy meem meem gu ndànk daañu ko yóbbu itam nag ci béréb bu naata naat mu nekk fay for alhamsatu nag aw bay wu jigéen ci lay bëgg a wax alhamsatu bay wu jigéen wa xabiixatul manzari aji ñaaw ab xoolukaay la maanaam boo nee jàkk di ko xool daal du rafet fi yow sawdaa u chanri aji ñuul kawar la daatu xarnay ni boroom ñaari béjjën la sax yi rëy ni aji ndawe ku la sabaahin ci gépp suba tax lu buhaa dana ko rat walidati sama yaay tasqiinaa dana nu nàndal moom sama yaay min la banihaa ci soowam ma aquuduhaa danaa ko wommat ilal barriyati jëm ci àll ba béyu jigéen wi dafa ñuul am na ñaari béjjén waaye béjjén yi rëyuñu suba gune sama yaay bu xëyee da koy rat daal ni may ci meew ma man nag maa ko yóbbu wëtali ko maanaam yóbbu ko ci àll ba mu fori ashonru waxe bu danaa sopp alxaroofa xaaf ma wala xarma alwadiha mi aji teey mi aji def ndànk waxibbu danaa sopp murafaqatahoo àndanteeg moom ilal bariyati jëm ci àll ba xar daal man ak ni mu dale ak ni mu yërëmtaloo dama neex ma ànd ak moom sax yóbbu ko fa ci àll ba fa muy fore lu ma neex la lu ma bëgg la at taw sion kaanat nekkoon na sadiqatuna sunu xarit bu jigéen bi as sulax faatu te moo di bonaat tatahada di daagu fii mishyatiha ci aw doxinam boo jàngee fii mishyatiha wala fii mashyatiha ci ab doxam rek fi suhuli ca joor ya xindama shahadat ba mu jàkkaarloog sadiqataha xaritam ba al arnaba te moo di lëkk wa baadarat haate mu jëkkanteeg moom qaa'ilatan mbir mu muy aji wax ne ko ahlan maa ngi wax ahlan bi xasiisati ci sama xarit bu tedd bi ahlan day firi dikkal nga sa waa kër dikkoo ci ay jaambur baat la bu ñu wax di ci tatagal kenn di ko yaatal di ko won ne ko bëgg naa bëgg naa lool ci ñëw gi nga ñëw ci man ak gis gi ma la gis kon ahlan wa sahlan daañu koy wax lool jublu ci wane mbégte ci kooka wala loola inna ni naka man mushtaqatun aji sopp laa ila musabaqatiki jëm ci rawanteeg yow li uf xima ki ngir ma xamal la ma ana lan xoo moom mada quwwati ki mooy sa yemukaayu doole mada dañ koy wax am lef ci wolof waaye mën nga koo firi rek tolluwaayu sa doole fahasat te gësam al arna bu lëg uddunay xaa ñaari noppam ña azaxira tey nii aji tuuti wa nadarat te mu xool ila sulaxfaati jëm ci bonaat nadrata stixfaafin xoolub wayafal ak xeebeel wa qaalat mu ne ko maada asaabaki analu la jot ayatuhal xabiyatu yow aji réer ji yow aji dof ji hal anti ndax yow qaadimatun aji dikk nga min mustashfal majanini bàyyi ko ci hôpitalu dof ya am annaki wala naka yow tuuri diina da nga namm adhahaba dem ilayhi jëm ci moom dane sunu xarit bonaat waxin wi noonu la dikkee sadiqatuna sunu xarit bonaat dafa doon daagu ca joor ya ay joor mooy suuf yu neex a bay ba muy daagu nag moom bonaat mu gis xaritam lëg lëg mooy xarit ba mu gis daldi njëkkanteeg moom ne ko ah yow sama xarit bu tedd bi maa ngi lay wax ëhlan bëgg naa lool ci gis gi ma la gis waaye nag dama bëgg rawante yow mu seet ba xam maa yow ku ci dàq daw ndax xam naa ne yow mi umpale nga sa bopp dangaa defee ne yaa dàq daw ñëpp waaye dama bëgg a course ak yow mu dàqe ndax ma xamal la ne dàqoo fee daw daka wax loolu lëg daal di gësam nopp yi dane nag lëg gësam ñaar noppam yu tuuti ya lëg nag mel na ne ay noppam xanaa du faral di tuuti saa yu nekk waaye daal noonu lañ ko waxee fii lëg daal di gësam ñaar noppam yu tuuti ña xool bonaat xoolub xeebee lool ne ko waaw saa waay danga bàyyi ko ci opitaalu dof ya doon fa faju bay door a génn mel ne danga tane te wéragoo am fi mu nekk nii danga jëm ca hôpitalu dof ya ndax faju fa lëkk da ko wan ne ko soo jekkee naa kaay ma dàq yow ndax xamal la ne la dàqoo fee daw danga réere sa bopp rek yow bonaat ba mu dee wax loolu danga dof rek benn yaa ngi doon faju ci hôpitalu dof ya mbaa boog yelloo nga dal cee dem léegi ñu faj la faqat tabat te ñëkkal mooy te ñaawal asulax faatu bonaat xaaji bay xaa yaari yéenam ya wa qaalat mu wax lil arna bi ñël lëg xaadibatan mbir muy aji mer ko daa yi bàyyil almusaaxa kaf ga jaaniban ci côté yaa zahra yow zahra inna nii naka man lastu déet man majnuunatan ma di ab dof xataa am saxa ba may kaf maa ki ànd ak yow wali kay tusaddiq yi ngir nga dëggal kalaam yi sama wax fa inni naka man uraaxinuki danaa tegan teeg yow xala sibaaxi ca dàqi ga muy kursu ga fatulu bi sàkkul maash iti lu la neex fa xafasat te tëb al arna bu lëg xafsatay ni ñaari tëb fil fadaa ci jaww ji wala ci àll bi wa qaalat te mu wax ne anaa man laa uraahinu duma jekki di teganteeg maxruuratan ku umpale boppam misla ki kem yow maxruuratan mooy ku ñu war ku teg boppam fu mu àggut fa anaa man musta'iddatun aji jekk laa aji waaj laa ba jekk an ad an ad faa ci ma fay ma fay lëkki ñeel la lëkki maa la nga xam ne tuuti diina da nga ko bëgg indama tasbiqiina nii ci waxtu wa da nga ma raw muy saayoo ma rawee hayya gaawal rekk istaxid di waajal li sibaaxi jëm ca dàqe ga wala kursu ga wa aleyna war nanu an nabda anu commencé min xunaa ci fii xataa nasila ba nu àgg ila shajaratil ballooti jëm ci garabuk balloot ga al mawjoodati gari buñ fekk xunaaka foofee bonaat bi ku lëg waxee loolu dafa daldi ñaawal kanamam mer lool daldi wax lëg ne ko yow daal danga bëgg a kaf te man duma kaf akub dof man dofuma bay kaf ak yow dof bile dama bëgg nga teg fee kaf gi te rek li ma la wax dëgg la ci man mu daldi dàqi ba xam maag yow ku ci dàq daw